83 députés ñoo la élire là je crois que sur le nombre majorité la fi nga toog noonu sa place la te incha allah dinañ la accompagner monsieur le ministre Abdou Karim Fofana Macky Sall xam na li muy def xam na ne xale yi nga xam ne dañu xarañ ci biir réew mi am na lu ñu mérité raison pour laquelle bi mu la dénkee ministre bii di commerce mu jël décision bu rëy bii cent milliards di ko def ci askanu bi nga xam ne ne pas askanu APR pas askanu Benno askanu Sénégal mu ne monsieur ministre coordonnel ma loolu ak le chef du gouvernement ak l'ensemble du gouvernement su ngeen paree ngeen ñëw ma valider te sama laam tooro lu mu validé rek lenn la maa la wax loolu l'expérience riche la da ngeen di comprendre CV macha allah zéro faute la fi mu mësaan jaar rek bàyyi na fa de très bon souvenir depuis DG Petrosen laa la wax depuis DG Petrosen jaar-jaaram ministère de l'intérieur ah porte-parole du gouvernement bi nga yor tey Macky Sall nekkoon na ko. Macky Sall mii nekk ministre boo xam ne ne hydraulique la équipement la expérience la daal dañuy ànd bi ñuy ut réew mi tournée yi bëri saa yu ñuy agsee rek ñooñu dalal ko ne ko lii courant bi yaa ñu ko indiloon bi nga nekkee énergie forage bi yaa ñu ko mayoon te Karim mii fekke nga ko kon nag moom xam na avant muy jot réew mi dafa dem ba xam jafe-jafe askan bi ba pare suñ borom ne ko eh Sénégal comme ñaanu ñi fi baax ñi fi nee Macky Sall laa leen di jox nga jàppale leen kon nag wax dëgg yàlla suñuy waxte yàlla tax Karim Fofana département bi nga xam ne day wàññi pour sénégalais yi bu la ko dénkee di commerce je suis sûr que un résultat te man xam naa sa engagement je me de beaucoup de choses je me souviens Abdoulaye moom du ma ko wax dara lu ñaaw nii lu bon jamais kooku suma principe parce que xam na ni makisal Sall mel te man politique benn sëriñ laa ci am mu ngi tudd Thierno Macky Sall benn sëriñ laa ci am te musuma dégg Macky Sall jël kàddu yëkkati ko wax ko ci Abdoulaye Wade wax ko ci lu bon impossible même bu muy wut réew mi te terewul ne bi yàlla dogalee mu jël réew mi te mu war ko remplacer moom ab Wade ñoom ñoo joxanti leng nit ki mën ngaa falu te waxoo lu ñaaw jëfewu ñaaw kon nag Karim budget bi ana Matar ana Matar Diop Matar dafa ne woon dana woote budget bi ba ci Macemba ba ci Demba man ba ci Moussa kon nag na sa xel dal dinañ ko voté te incha allah di nga génn ci salle bi hémicycle bi avec un budget incha allah qui voté ak majorité bii incha allah jël ko l' ensemble des collaborateurs yëpp maa ngi leen di nuyu bandiraaɓe jinmi ko paamon ko yahate leydi ndi on puɗɗima faamde renndinooɓe ko wonaa goonga pewno jiiɗa wattude ɗum goonga goonga ne woodi no jogii geɗal te woppetaake haa ilaa yawmudin sen ngari haa e nokku mawɗo leydi sénégal président de la république e kaalis leydi ndi kanko jogii gooto pouvoir wadde décidé wonaa hay gooto temedere milliard omo waɗa ɗum mbele nguura kaane ustoo so a ka député assemblé national tawde ko wootte ko wonaa apr jeyi wonaa pouvoir jeyi wonaa opposition ko sénégal jeyi a salima woode mbatte hakkillaji moon eɓen dilloɓe politique o noon ittunoɓe carte moon dokkiɓe dokkuɗon ko kurjuru mbatte ɗum hakkille no moƴƴi doko noon gande koye moon mawɗo leydi ndi wi ko yo usse karim fofana addine usta ɓe mbi kamɓe ɓe jaadata ko ustere te ala ko ɓe jogui goɗɗum ko wona ko ustere on gustata on jaadata ko ustere on mbawa ustude ɗum noon mbatte ɗum hakkillaji moon karim fofana mbiɗan ko voté te incha allahu rabbi